mandargal fi nga xamne fi la soufous touba manam titre foncier bu dëkk bu sel bi yam lolou mo sababoon ndaje mi nga xamne don nañ ko amal tay ji ci alterné ji depo ak fukki fan ak ñaar ci wéru avril atum 2021 ci daaray isbu tarxiya momu len ndaje mi ngi don am ci tewayu gouverneur bu région de djourbel waye yit préfet bu mbacké ak sous préfet bu Ndam ñu and ko ak maire bu Touba Abdullah hadka waye yit Serigne Koso mu Serigne Muntaxa mbacké délégation bi ginaaw bu ñu agsee ci daara ji dalal nañ len waye yit ñu yobulen ñu ñu réceptionné borne yooyu nga xam ne waa Hizbut doon nañ ko defar ngir mu mën a wane fii nga xam ne fii la titre foncier bu Touba yam ba ñu noppee ci cérémonie de réception boobu lee kuréel gi nga xam ne Serigne Mountakha moo ci joxe ndigal ngir ñu taxawal ko amal nañ ab janoo ngir waxtaane fii nga xam ne fii lañ toll ci liggéey bi waaye it li nga xam ne moom la ñu dëgmal gannaaw boobu lay jataay mboolem kuréel gi ànd na ñëw ci Serigne Bass Abdou Khadre mi nga xam ne moom mooy porte parole yoonu murit waaye it di jëwriñu liggéey bi ngir gaaral ko fi nga xam ne fi lañ toll ci liggéey bi Abdou Lahad Ka mi nga xam ne moo financé borne yi nga xam ne waa daara Hizbut Tarqiyyah liggéey nañ ko dellu na ci rafetaay ak sell goo xam ne borne yi nga xam ne waa Hizbut Tarqiyyah defar nañ ko am na ko def nañ état di lieux ci titre foncier bi tàmbalee ci borne bi njëkk wër ko ba dellu siwaat ci borne bi bi ñu tàmbalee woon muy 74 kilomètres yi xool nañ ko gis ne borno yi dafa xawoon gàtt yenn yi dafa dafa dafa réer ci loolu la gouverneur xalaate ne dañoo war a defaat yeneen borno ñu waxtaan ba ne ak service technique yi ba def ba ba tënk loolu euh, jox ko sa jius ñoom ñi muy isbu yi ñu ñu xalaat nan lañ ko war a defee biñ leen ko joxe def nañ ko defin woo xam ne wu mucc ayib la ndax benn bu nekk def nañ ko war na huit cent kilos daal def na hauteur deux mètres loolu ba nga xam ne yaakaar naa ne fu mu xas tegu yaakaar naa ne doot foo taxaweti seen ko foo jubati dëkk bi boo duggee titre foncier bi da nga xam ne dugg nga titre foncier bi booy génn ci dëkk bi boo génnee booy tolloo bot porno yi da nga xam ne génn nga titre foncier bi te defe naa ne loolu nga ñu euh, santoon ci turu sëñ bi ne nañ ko defal mandargal ko ba muy lu ñëpp xam ba kenn dootu ci mën a dugg Euh, wala kenn dootu ko mën a jeg wala ko ko jegete wala nga dugg ci xam ne yaa ngi ci li nga xam ne mooy biir titre foncier bi defe defe nañ ko noonu loolu loolu nag biñu demee réceptionné nañ ko borne yëpp noppi na war a toll ci cent cinquante six la woon léegi ñoom def nañ ba cent cinquante neuf yoo xam ne nii pour ngir am na supplémentaire boo xam ne bu ñu demoon ba ba ba ba ci ci quantité bi ñu ñu juum ci du du tax ñu ñu wutiwaat ko. li nga xam ne mooy gouverneur bu Diourbel di góor gi mbay dellusi na ci liggéey bi am ngoo xam ne am na ko solo waaye it li nga xam ne mën na koo jariñ dëkk bu sell bii. Touba bëgg nañu mu nekk ci dëkk yi gën a moderne ci àdduna ci cité yi gën a mën a moderne yu gën a organisé ci àdduna te loolu bu ñu ko bëggee faw ñu saytu suuf sa fa am. loolu la sëñ bi xam moo tax mu wuñu ko ma ànd ak service technique yëpp ak autorité yi préfet sous préfet ak urbanisme cadastre ak euh, ñëpp ñi mu war àndal service technique yi ñu saytu ko. Touba euh, gis nañ ne sax li ñu dëkkewul moo ëpp li ñu dëkke te loolu yaakaar la waaye ginnaaw bor bu ne mu ngi fay màgge ci dëkk boo nga xam ne dafa nekk dëkk bu ju yaakaar. Euh, xalif bi tam bëgg fi am ay projet ñu defaraat dëkk bi bëgg ci bëgg mu jëm kanam faw ñu saytu loolu loolu nag moo tax ma ne njariñu liggéey bi dëgg-dëgg ci kanam lay doon ngeen dañ koy gën a xame ci fekki at incha allah ah di xam ne loolu loolu nag euh, boo xoolee assainissement bi daanaka tey ci suba la ma directeur général ONAS wax ne ma dina ñëw fii pour plan directeur d' assainissement faw ñu xam fan la canalisation yi di jaar fu ñu koy def tiwo ndox yeeg fii loolu lépp faw ñu rëdd ko ci quartier yeeg fépp waaye plan directeur du d'urbanisme daal moom dëkk bu boo xam ne dafa bëgg a jëm kanam mën a bokk ci dëkk àddina yi gën a lim te loolu lañ bëggal Touba loolu la sëñ bi bëggal Touba faw mu mën a faw ñu am ko waaye lii ñuy def nii mooy mooy mooy mooy lay mooy laytaay ji loolu dina ko yombal dina ko dëgëral ba nga xam ne du am benn problème suñ si jógee itam dañu woo waa waa ANAT agence nationale d' ménagement du territoire ñoom ñooy gën a leeral diggante nag euh, commune Touba ak yeneen commune yi waaye déjà rek jël nañ ay mesures ñun administration euh, ma jaarale ko ci préfet wax ne yeneen maire yi nga xam ne dañu lëkkaleeg Touba yëpp dañu dañu dañu dendee bu kenn defati benn délibération tant que loolu ñëwul déjà dañu gelé dañu arrêté ñoom bu fi kenn joxee ti suuf lu sa ci euh, tu commune Touba parce que dañuy bañ bés bu ñu leeralee ñoo ñu ñu jox féete féete Touba te ñoom ñoo leen jox kayit moo tax ñoom nangul nañ ñu ko nee nañ dootuñu defati benn délibération loo xam ne daal sës na ci suufal Touba. loolu bokk na ci sécurisation foncière bi nga xam ne sëriñ bi demandé nañu ko woon fa dëgg yàlla ñu ngi ciy dox ay jéego. serigne bassirou mbacke abdou khader mi nga xamne mom mo yor cadeau khalif general des mourides ginaaw bu mu delu ci ci ciosanul titre foncier bu touba bi lako ko tambalé ci serigne modou moustapha ba ci serigne saliw waye yit ex ba ci serigne muntaha yekati na yit ay cadeau tiant jëmele ko ci ñi nga xamne ñoo séxon liggéey bi ñu leen di delu am yo ci turu cheikh mahoudou muntaha mi fi serigne touba di ñaan mu yag fi lool ta and ak mom mi nga xamne ci xalaatam ak gis ci sam bu sori ci ci la xalaate ndaje mi nga xam ne ñu ngi koy def tey ndax moom yàlla dafa def ni ngeen ko xamee rek waxtu ne yitteem yëpp mooy di xalaat nu dëkk bi gën a yaatoo nu gën a ñoŋe nu gën a dëppoo ni ko borom bëggee ci biir xalaatam yu kaw yooyu nag ci la xalaate lii ngir bëgg li nga xam ne mooy titre foncier bi nga xam ne ñu ko si ko koso waxee léegi mi ngi tàmbale woon sax ci Cheikh Mouhamadou Moustapha mu defoon ci li wër jumaa ji ba agsi ci Serigne Saliou Mbacké mu yóbbu ko ci fi mu àgg nga xam ne jël na mbalum suuf suufaa sëpp ba jëlaale lu bare bare ci loo xam ne bokku ci woon ci atum 2000 kon ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ngi lay yëkkati cant ak ngërëm di ko ci sa loxo li ma la ko waxee keroog bi mu jotante ndax sëriñ bi moom itam jëpp la ci jiitu mooy sàmm dëkku Tuubaa bi ba ni ko borom bëggee dara bañ koo ruur waaye dara bañ koo ñàcc kon képp koo xam ne gis na ne yaa ngi koy jàppale ci taxawaay boobu fu mu toll di la sant di la gërëm te di la ñaanal moom nag àgg na ci borom ko xam ne waxuma ku mu wéeti ñaanal la ci boromam waa ko waaye ku xolam sedd ci yow rek faaw yàlla sedd soxol te doy na la sëkk cant. ndax jëkko fi am na ñu fi jiitu waaye bu demee ba tànn sëñ Kosso mi nga xam ne mooy ab taawam boole kooki ndaw yóbbante ko ne ko ne yónni ko ne ne yow ba ci yow fekk la njaarim sant la gërëm la loolu doy na sëkk médaille ci yow kon ñu ngi la ñaanal bu baax suñu borom gën laa dimbale ba yéen ji xam ne am na ko ci te liggéey bi ngeen seq tax yàlla dimbale la ko ba lépp àgg boo fi jógee jóge fi ci yokkute yaa ngi ñu ko seqal ñëpp di préfet ak sous-préfet euh, sëriñ Abdoul Ahad yow itam ñu ngi lay sant bu baax ndax xam nañ ni sax waru si laa sant ndax ni moo koy faral di wax rek euh, commune bi àll sëñ be yow moo fa nekkee sëriñ bi la fa teg kon bu la Serigne bi santee wala gis bëgg-bëgg suñu nga dàq ko def ko kon loolu sababu mu koy defal waaye ñu ngi lay ci sant ci turu Serigne bi la ñaan itam yooyu yàlla gën laa dimbale ba nga àggale sa ni nga ko bëggee. di gërëm ba it Serigne Youssou Diop mi nga xam ne moo jiite daara Hizbut Tarqiyyah mooy itam ci yitteem ak positifam ak taxawaayam ndax bi fi Serigne Atou bàyyi ko ba nëgën itam fekk na ci nekkam li ëpp ci liggéey bi mu xamoon ko ndax moo ko daan doxal kon looloo war a liggéey bi yomb ci moom waaye ndigal yi ko fi jox yëpp itam bu ci ne wane na ca taxawaay bu ëpp bañ ca daa def ndax boo ci jiitu mooy bii foog naa ne ci liggéey yu ko sëriñ bi sant la kon loolu itam tawfeex ju rëy moom itam kon liggéey bi daanaka sori na xëy na àggagul nag kon ba lañ ko jeexee dañuy bàyyi rek ba ñu samp borne yu ba réception ko ba lépp jeex waaye lii sëñ ko soo seere léegi rek ci yëg-yëg bi mu ci am ak yëg-yëg bi ci taalib yi yëpp am ak yéen ñi nga xam ne yéen a seq liggéey bi loolu doy na sëkk kon ñu ngi yemale foofu kàddu yi. di ñaan rek lépp àgg te li ci sëriñ bi di séntu yaakaaruñ ci ñëpp ba tax mu yab yónni ñu ñu doxal ko ci mission bi yëpp sotti ñu day ci tawfeex day ci ngërëmam moom ndax buñ ci jee ngërëmam rek day ci ngërëmu Sëriñ Tuubaa te ngërëmu Sëriñ Tuubaa rek la ñu sakku xanaa di fàttali rek ne bile dajee moo nekkoon ñeenteel bi yoon ñuy dajee gannaaw ba nga xam ne sëriñ bi joxe na ci ndigal ñu amaloon am ndaje ca gouvernance bu Diourbel waaye it ci résidence Cheikhul Khadim bi nekkee Touba daal di ciy teg ab visite ci fi nga xam ne fi la titre foncier bi yem di le rek jéego bi nga xam ne moom lañ ci war a teg mooy samp gi nga xam ne war nañ ko samp borne yi ñu jàpp ko ci le 26 avril bi nga xam ne moom lañ dëgmal